asalaamaaleykum mbokk internet yi ñuy seetaan seen xarit la seen rakk tuuti Ndiaye namoon naa leen xaw ma na namoon ngeen maam déet waaye man namoon naa leen ci seen biir émission ndaanaan ci biir goxam ci kaw loolu damay jaajëfal mami mi nga xam ne moom ma fi teewaloon fan yi passé ci sama émission parce que dama génnoon ci voyage bu gàtt tey nag ñi ngi fii nga xamante ne mooy géejawaay kan lañ fiy seet si Pape Bara borom wuyaay yooyu ah borom géejawaay ah doomu nday di Diop ñoo ngi fii géejawaay damay xool nan la fi toogee ak nu mu nekkee waa koñam ak ay mbokkam sama caméraman Malick la assistant wam di Baara sama doomu nday xool nan la fi toogee ak ay mbokkam maa ci biir koñ bi damay wër xool ku may taseel laaj ko kan mooy Pape Bara Malick ma sama caméraman man maay frère am man maay jumeau man maay lépp d'ailleurs gàllem laa doon ñëw nii far ñu daje. waaw déggal li yàlla di def ne nag gàllem la doon ñëw far ñu daje lan nga ñu mën a wax tey ci ndaanaanu suñu ndaanaanu tey bi muy Pape Bara. waaw avant tout ñu mën a xam bëri na mais comme ba dañoo daje dañ koy monopoliser rek def bref tout d'abord Bara wuyaay lañ koy woowee man ma koy woowee l' international ambiance xam nga parce que li muy def daf ko bëgg ba pare dafa am gëm-gëm boo xamante ne man dama koy gis si moom à travers bu nekkee sur scène dama koy gis moom bu ñu toogee di waxtaan dama koy gis si moom des fois sax dañuy defulu nii muy waxee xaal bu xam ne kii nii vraiment il est bien développé te li nekk nii nekkul loo xamante ne da koo tànn gëm-gëm moo ko nekk chose de sacré kooku liggéey moom day doon loo xamante ne dafay yomb trop comprendre ba pare baara facette yu nekk ci moom moo bëri tey jii nii bon moom hip hop la commencé mu bëri xam nañu ko mais hip hop la commencé woon yaa ngi dégg en 2007 2008 Kata Bren temps yi ñu nekk xale di fooy loolu léegi moom style boobu noonu mu am ci hip hop bi moo ko may facilité bi muy am ci kaw seen man ak moom dañuy toog man ko mais baara doo bind mais moom du bind moom lépp da koy improviser sur scène kon kooku noonu nga liggéey ak moom dafa doon lu yomb ba pare moom dafa free il est comique des fois may wax sama benn xarit sax comprendre nga moom nekku fi mu ngi bitim réew dañuy waxtaan des fois ci whatsapp bi mu naan kon mais baara est-ce que doo ubbi benn émission di woote nit ñi di leen reetaanloo def beneen facette nga xam ne ce sera comique comprendre nga mais baara day ree rek bàyyi mu jàll xam nga pour wan la ni kii vraiment liggéey ak moom dafay yomb parce que boo amee artiste boo xam talent yooyu yëpp mu ngi ci moom ba pare il se concentre dëgërul vraiment liggéey ak moom nekku na lu yomb quoi nga koy manager ah mu nekk xale bu ndaw projet yi fan ngeen ci toll ak album beeg ñoom seen yaakaar naa yéen a ci kawam. waaw instant yii nii nag vraiment bon def nañu album ak CD comprendre nga joué na si ay morso yaa ngi dégg am na ay morceaux tamit da cee wax comprendre mais tamit ba boo nekkee di ànd ak benn artiste kooku nekk ci kanam ngay promouvoir ba pare muy Sidi Diop am nga boo ko promouvoir ba pare moom boo demee baare lay dem mais moom bu taxawee baare dafay taxaw comprendre léegi projet yi ci ban sa carrière yi lañ koy mën a tënk pour Baara mën a démarrer mais dinañ am foo xam ne bu ñu fa tollee tamit vraiment fu ñu nee Sidy Diop dañu ne Baara comprendre nga te Sidy na foo xamante ni bon Sénégal ñëpp dañ koo xam xamaale ci Baara waaw te loolu benn liggéey boo xamante ne dañ koo tegoon ci benn base bi nga gis boppam waaw ba tey looloo ko may li yëpp parce que seen yu mag yu ñu joué yëpp comprendre nga ay artistes yu ko jiitu moom Baara si millier bi di def li muy def ñu ngi ci te scène yooyu joué comprendre loolu moo ko may tey jii ba yéen ngeen seet si ko yaakaar naa. muy ñàkk kii incha allah ndax booy ànd ak nit muy dem danga koy ñaanal mu dem ndax bu demee yow tamit comme ni ñu koy waxee olof waaye ci kàddu yooyu laay daanele damaa gis fi ay xale jigéen yu baax damay dem xool leen laaj leen maa ngi ñëwaat ci yow pareeguma ci yow. duggal ña ma ami waa Pikine rotat bu set rotat bu set bu bu bu bu bu

mu mel comme ni mel rek wàccee boppam bañ a yëg succès parce que Sénégal moom boo fi xewee siiw rek euh, mën nga am ay kii yu bees yu xaw la yëkkati mais ni mu mel moom baax na na góorgóorlu aar bi dafa yaatu nekk mën na si jël sa wàll waaw lancé nekk moom ko bàyyi na continuer na gën a approuvé daal ndax mi yoon bu baax. ñu lay jaajëfal. merci beaucoup maa ngi di ñu koy jaajëfal bu baax. sama toppee rek ma wan la li nga xamante ne moo nekk biir géejawaay ah damay daagu rek dugg ci biir kër gi.

moom moom bu yeewoo relax ñëpp a yàkkam ci mu wàcc ndaxte kaf fooree ak nu mu neexee wax ji xam nga humoriste la daal en quelque sorte. Mm-hmm. di ko dolli ci milieu bi nga xam ne moom la nekk muy milieu de la musique lan lay doon. mu gën a <laughs> mu gën a lii daal waaw. non saafoon technique bi sax mun na ko bu baax macha allah ku mu romb ba lay wàcce na boppam ba toll mais xam nga milieu musique moo xaw a doy waar boo ci nekkee dangay ngay xaw a moytu affaire yooyu noonu rek. maa ngi lay jaajëfal de. ah ma koy jaajëfal maa ngi topp ma ma dugg ci biir ah si ma dugg ci biir kër gi xool li fi li fi am. kër gi fi ni ma taxaw xala bu jigéen boo kala. ah nuy na la. maa ngi lay tur bi naka la. ci bir kër gi la la fek yow lanoo Pape Bara la. Baara ah bon loo ñu mëna wax ci mom kon di nga di nga mieux placer pour wax ñu ci bara bara dafa dafa yaru am na yermande yegg na nit bax bax na torop daal am yermande ba pare dafa yegg nit maa sonaloo ko des fois petite sœur yi dañuy sonal seen frère yi. sonal naa ko kay ndax saa yu mu ñëwee chaque jour lu mu yor ma jël ko xaalis bu mu yor ma ñëw jël ko sonal naa trop waaye moom bu baax la baax trop. mu metti loolu nekk jeune nga xam ne euh, ba pare nekk ci milieu artistique musique bi muy def des fois mu guddee tëdd sonn affaire yooyu lan la lay def buy guddee ñëw affaire yi. ah parfois bu guddee ñëw ça se voit qu'elle est un peu timide je koy comprendre ma lay jaajëfal bu baax a baax. ok merci. Je suis maa ngi ci biir kër gi damaa gis damaa gis benn jantal mara comme ni ñu koy waxee waa star ah tur bi naka la. man Ali Mbow lañ koy wax. Ali looy wut fi yow si kër gi nii yow. waaw c'est sama xarit Pape Baar waaw ndax moo ma ko jaral te it dafa baax ku oyof koo xam ni yëgul li mu doon daal baag Serigne Touba man li ma gën a neex si Pape Baar mooy te lu mu am bokk ak doomu aadama moo tax muy jógee ba géejawaay Canada di fi ñëw ànd ak sama nijaay ju baax si Gueye ñu bëgg ko lool nag barke yonent bi toppeewuñu ko ngir dara Baay gi mu doon moo tax ñu bëgg ko ak sëñ Baara. muy ndaw nekk ci milieu bi nga xamante ne mooy musique mu danger lool ah bëri ay tolof tolof ay faxastal ana tey boo ko doon conseil di ko dolli en tant que ndaw ah lan lay doon. waaw li ma koy conseillé lenn rek la àdduna moom si loo mën a nekk dee si boole jaamu yàlla. di jàpp ba set di julli waxtu yu juróom fonk say wajur lo am tamit di ko bokk ak doomu aadama yene ñepp jamm te it foo dégg nit ku baax rek ko xamni amna am barke di ñaan rek nga dem si sa ko parce que nit ñi dañu soxor léegi non daal la dem para nan la bir biir way gi mu dëkk ni wa pap nim nekké bir biir way yi sha allah ñu manam rafet na trop bak Serigne Touba mbak ndax yaatuna et puis kum gis jox la cër nuyu la barke Serigne Touba mbak mo xaritam géej deug neexu ñu lay jaajëfal ma daal di waaxu seeti keneen rek. waaw cum wax leen nag sama nijaay Sika Gueye mu wax si moom lu baax. ah nijaay nijaay daagu si ñoom fekk si ma ah ma daal di wax ak yow. ma sax di expliquer parce suma mais booy bi yàlla moo ma boole benn woykat laa ak mais booy Pape Bara dafa am lu benn charme bu nekk ci moom mu yaatu baax oyof. comme moo koy conseillé xam nga lan laa koy conseillé conseillé ne ko bul naagu parce que bërki démb ku ñëw fii man dama àndoon ak sumay copains yu bëri yu dëkk fii seetaan si ko mais nice laay seetaan yàlla moo dogal loolu ko ñaanal nag lépp lu mu sumb na ko ci yàlla defal ay teraanga yu bëri bon ñuy dem bay tëgg feneen pourquoi Bercy mën nañ tëgg fu ne yàlla ko yàlla mën na ko te dina ko def parce que tey ji jigéen ñu ñaawul ñi buñu taxee fii wax ci Pape Bara man waxuma ci dama naan dama soxor comme ni ma la wax rek ragal féete day xañ a wërsëg wax naa la fi ma bokk ak nu mu demee mais booy bi dafa yaatu te musique pour nga gagné ci lu bëri foog nga yaatu jigéen ñi nga jox leen cër te jox na leen cër ñii ñooy tax ñooy avancé loo musique sénégalais te gëm naa ne dañ koo bëgg Pape borom baax la maa ngi ñaanal seen télé bii nii yàlla na ci yàlla def ay xew lu bëri jërëjëf waay soxna si. kàddu yi rafet na macha allah sama nijaay ñu koy jaajëfal bu baax a baax Malick suñuy yaay laay seeti. ah ki waral mbabor bi ki tax ñu ne tay pa Bara koku lay seeti ko sama micro laaj ko samay cadeau toog ak suñu yaay ju baax ji macha allah yaay boy nuy naa la nuy naa la doom tur bi nakala yaay boy yaay kumba ñu ci sa dom ci suñu biir émission ci biir goxam muy pa Bara kan moy pa Bara ah, pa Bara bi sama dom la yaayam moom mo top ci man seen yaay ko genn aduna ak mom waaye macha allah ni ma ko gisee woon bi muy xale ba léegi noonu laa ko gisee waaw dëgg yàlla yaru na teey na am na yar te bëgg na doomu aadama te lu mu am tamit bokk ko nit ñi waaw seetaanuma benn yoon dama feebar waaye fu mu dawee ñëw balaa muy wax dara man lay jëkka lijjanti ma di ko ñaanal yàlla rek lii muy def yal na ko si yàlla suñu borom def ca kaw a kaw moo ki mu àndal mu si di jóob yal na leen yàlla suñu borom gën a suturaal seen ànd bii yal na ko yàlla suñu borom gën a boole te lépp luñ ci bëgg rek yal na leen ko yàlla defal dugg yàlla xale bi baax la man daal awma benn problème man ku mel ni Pape Bara sax ma jaaxal bu ma mënumaa wax wax bu sori daal ndax da di borom yërmande li nga xamantene moy musique mu jafé lolé ci suñu société fi ci Sénégal ah, ndax des fois da ngay goudé ñibisi ah, nek ci ay ciono jafé jafé surtout bo dé ndaw ana tay lool lan la lan la def bi mu lay musique lay def yaay boy wa lool tamit déggal dama ci ndax sa yu dem bu ñëwé dama la kaan ay dëkkandoo ngeen fi nekkal mais bu ngeen ñëwé na ngeen xam ni ngeen def ci biir kër gi mais bu tëdd bu ñu ñëwé wax dëgg dinañu ñëw ba dugg ci dara té loolu ci yar dong la bok ndax bu doon keneen tay kër gaangi riche mais heure bu ñu waxee may na ma cër boo xam ne bu ñu waxee mu leen sama yaay wérut dama bëgg ngeen di dox ndànk dal ndànk teey na daal te ànd ak na dalam wax dëgg yàlla di ko ñaanal yàlla rek moo xam fu mu bëgg a yegg rek yal na ko suñu borom yeggale barke Seydina Muhammad boo xamante ne moom nga koy dolli li nga koy dolli ci entourage am bi mu nekk maanaam ñi nga xam moom ñoom la bokkal liggéey ana tey lan lay doon sama yaay. waaw mu gën a góorgóorlu rek te ni mu ko commencé xeebul kenn wax dëgg yàlla. ku mu gis rek def na leen boppam waaw kon boog loolu damay ñaan yàlla rek mu góorgóorlu ci rek yàlla gën leen may ndam. dañuy bañ a téye sa temps bu yàgg ndax suñu yaay ni nga koy gisee dafa xaw a jagadi ñu koy ñaanal yàlla wéral cër yi bu baax a baax yaay booy ñu ngi lay jaajëfal. waaw kañ jërë ngeen jëf yàlla yeggal seen ndaw. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Malick mu doonoon yaayu Pape Bara ki nga xam ne moom lañ seet si tey ah, ñu koy ñaanal wér gu yaram bu baax a baax a baax pareegu ma de. seen émission la ndaanaan ci biir goxam. nuy naa la. fay naa la soxna si. tur bi naka la. Yacine. yow lan nga tey ci suñu ndaanaanu tey bii lan nga ci moom. waaw suñu ndaanaanu tey bi dama bokk ak moom mu baax doon nit koo xam ne dafa baax yaatu amul benn problème wax dëgg yàlla baax bëgg ay xale bëgg ay nit amul benn problème wax dëgg yàlla bëgg nit yëg nit waaw. mu nekk ci li nga xam te ne mooy milieu musique ah, mu jafe lool ah di guddee tëdd di guddee ñëw tey ci boo ko doon conseil ci milieu bi nga xamante ne ah muy milieu musique lan lay doon. dëgg la dama naan ko na góorgóorlu gën a kii te xam ne am na ñaanu waajur wax dëgg yàlla saa yuñ jullee nañ koy ñaanal dëgg yàlla mu nekk rek joo xam ne daf ma fonk teg ma place wax dëgg yàlla bi muy takk jabar man damay premier njëkke mu doon lu rafet loo xam ne ba tey jii mën naa ne loolu dafa nekk sama xol mu bokk man baax bay bëgg a dee yaatu wax dëgg yàlla amul la kenn problème ku joteel ku ne yaa ko tooñ wax dëgg yàlla. ku la yëg rek moo lay may première njëkkee ku yëg faale la safoo la moo lay may cër boobu noonu ah loolu rëy na macha allah. dëgg la dëgg la man dama koy ñaanal gudd fan di ko ñaanal sëñ Fallou ak maam Diarra ci kàttanu yàlla te dina ko am ndax borom baax la di ko ñaanal nag fu mu bëgg àgg yàlla na ko suñu borom àggale. wasalaam. Hmm. <laughs> ñoo nee na wasalaam wasalaam ñu koy jaajëfal bu baax a baax moom yaasin ah wax yi rafet na macha allah Malick ci suñu ndaanaanu tay bi la ñuy seeti Pape Bara li tey muy suñu ndaanaanu tey bi di ki ngay ki ñuy woowee Pape Bara ndaanaan ci biir goxam la ñu wax ñu ñëw fii nga xam ne mooy géejawaay déglu ngeen témoignage yi nga xam ne moo fi jaar bu ci mujj di yaasin ndakam jooju nga xamante ne waxal na ko lu rafet ma toog ak sama ndaanaan Pape Bara nuy naa la maa ngi lay fay sama jigéen sama xarit di ko ci loo ne maa ngi ci jàmm Pape borom géejawaay Pape borom wu yaay yooyu Pape doomu nday Sidi Diop waaw a xam nga wax noonu lolu rek la teg fi ko tek fofu la waaw yaama gëna xam waa di nuyu wa aduna di nuyu wa senegal di nuyu ñëpp waaw ku ci nekk ci turam ak santam di len wax dal fa bara mo ngi ni xalé la bu nekk ci yoon di liggéey nekk ci ginnaw Sidi job diko jappalé suba subaak ngoon guddi ak beccëk waaw ci lolu lañ nekk dal liggéey rek. kan moy pa Bara. waaw ah, Pape Bara ben jeune talent la ah, bu nekkoon rappeur. wa jeki jeki sama xarit sama doomu day Sidi di way ci affaire mbalax ma bàyyi rap bàyyi musique jékki-jékki Sidi ñëw jël ma ne ma dama bëgg ngay nekk sama ginnaaw di ma aw ma ne ko mais booy du ma mbalax maan <laughs> voilà du ma mbalax maan te aussi ma du ma géwél quoi pël laa <laughs> est-ce que yaa ngi dégg mu ne ma no lool du dara ñëwal rek xam naa ni am nga talent bu ne ci yow buy laaku ci yow xam naa ne boo ko yeewee mu yeewu ci laa commencé nekkanteeg moom maak moom maak moom maak moom ba fi affaire yi toll nii daal waaw moo tax daal mooy loolu. muy ndaanaan moom Sidy Diop ñàkk ki ñaan loolu ñu koy nuyu bu baax a baax de passage ci suñu émission bi di ndaanaan ci biir goxam Pape depuis kañ nga commencé liggéey ak Sidy Diop. waaw Sidy maa ngi commencé liggéey ak moom euh, depuis ba mu débuté carrière mbalaxam mais avant ma koy aw euh, def na mbalax ay 3 ans 4 ans waaw. ci quatrième année bi ci laa commencé ñëw di aw parce que xam nga am na loo mu ngi ci man dégg-dégg bi mu ngi ci man osé bi mu ngi ci man bi mu ngi ci man ma ñëw assuré ko bi ma koy njëkk aw loolu kuku sinap la doon kuku sinap bi ngeen di dégg ku yor kóol bu baax foofu laa ko njëkk awoo jour boobu laay door a téye micro ci mbalax boobu doon wax la mu ngi naan ku yor bu baax yëkkatil sa sinap ku yor kol bu bax ey yekatil sa sinap mu nan sinap saat len, sinap saat mu nan ko kuku sinap boy kuku sinap dangay sinap tar ka la bobu nga xamne lama ko fecc aduna ëpp na pap bobu neex na fam nga japp fofu bax na mashallah mais avant nga don dugg ci mbalax yaangi may wax sank ne rap nga don def jotone nga genné album single quelque chose comme ça waa defoon nañ ay single même Sidi mii sax rappeur la woon moo ñu daan sool bu ñu daan rab nii di wax moom mooy jàpp sool yi di way xam nga affaire yi di ko neexal noonu noonu noonu moom ak euh, jékki kii mënaan la tay mooy suñu manager waaw ñoo doon defandoo yooyu yëpp quoi waa jotoon nañ def na 4 single ba 5 bokk ci benn émission bu ñu naan talent banlieue ñu dem ci ñaari yoon final mais malheureusement mujj ñu ko jël parce que problème de point xam nga. ku ëppale SMS mooy gagné waaw mais mais amoon nañ ci talent torop torop torop torop macha allah waaw. jaaxal mooy da jóge ci rab dem ci mbalax nu mu demee noonu rab bi daa doxut wala. waaw rab bi du ma ne doxul <laughs> du ne dox na boo xoolee Sénégal mbalax moo gën a dox quoi gën a dox waaw moom la gars yi di gën a consommer moo ëpp xaalis moo gën a neex. waaw mooy loolu. nee na nee na nee na nee na rab bi kii mbalax bi moo ëpp xaalis kon nan nan nan way rek Malick sama doomu ndey tey jii baare lan la xam ne def nga ko ci musique bi loo xam ne yaa ngi sentir fier que ne man su ma yëgoon teel a dugg ci li nga xamante ne mooy musique. voilà lu waaye am lu ne doomu aadamaa ko ëpp doole fuuf ku amul nit amoo dara macha allah waaye Pape tey boo ñu doon wax projet yi nga xamante ne ci nga nekk. ah yaa ngi ci ginnaaw Sidi job comme ni nga ko waxee waaye dama bëggoon xam ndax yaa liggéey ci leneen comme maanaam single boo xam te ne yaa ngi ko bëgg def ci mbalax bi nga xam ci nga dugg ba nga rab <laughs> lan nga may wax tey ji ci loolu. waaw ñu ngi ci xam nga doomu aadama moom képp kuy dund rek am nga ay projet waaw te Sidi nekk na ka nga xam sama xarit la sama jumeau la sama frère de sang la ndax dañoo yàgg ci koñ bi lañ juddoo yaroo fi màggee fi ba amee fi liñ fi am waaw ma nekk ci ginnaawam nag di ko jàppale waaye nit ku nekk ñaan nga yàlla nekk ci sa yëfi bopp waaw xëy na nag dafa jotagul mais bis bu jotee di ngeen gis baara ci beneen facette ci beneen musique ci beneen parce que tey jii nii man su ma doon liggéey ci musique internationale laay liggéey du ma liggéey pour national damay def dem af def afrobeat moom laay def changé beneen style musique te du tee damay ànd ak Sidi pas kamar semua istimo jokelon wah teman internasional lah lola jake sambo internasional lah ah, mau tak kuah kamu kok mau kalah nih elek lenen lah deh lu bok tuh musik balak suara tuh nam balak ya eh, udah campur sama balak aku ah, nak ambil mandal ah. mau kamar tenek kudu nubanir dah dundu nakar ñaanuñu yàlla ngay dund naqar saa su ne waaye loo xamante ne dund nga ko loo xamante ne ñaan nga yàlla bañ koo dundati ci sa carrière bi nga xamante ne moom nga nekk lan lay doon ci musique bi nii. waaw man euh, yaakaar naa ne musique moom yàggaguma si quoi parce que dundaguma ci loo xam ne lu ma metti la ndax man bu ma dee am lu ma metti sax nit ñi duñ ko xam ci man voilà nit ñi duñ ko xam ci man. Metik ak banex la yamale su metik ñewé damay contane su banex ñewé damay tiit da xamna ni metik bu ñewé rek lu neex mo ci top ta banex bu ñewé rek lu nakari mo ci top ma man ci lool lay dund ko lool motax pour nga gis ma am lu ma naqari nii sax problème la man daal lenn moma ma met nga def doomu adama lo xamne dama koy gis sama xol toy ma jër lool moma ma met wala nga gis sama ben soppe nekk kii nga koy yàq naan ko non lii yëpp yëpp yëpp lii ba ma jot ci loolu loolu rek a ma mën a mett mais leneen leneen man daal musique bi moom dëgg yàlla amaguma ci lu léegi yàggaguma si ci biir géejawaay am nga fi ay fans ak ñoo xam te ne sopp nañ la tey buñ la bëggoon fekk baara fi muy tëggee fan lay doon waaw tey jii nii boo ma bëggee fekk fi may tëggee mooy ma mooy fi si di di tëggee rek duplex la ñuy nekk chaque vendredi waaw samay soppe soppe sii parce que ku nekk dafa am ay soppe ñoo koy ñëw ñu daje ko nekk benn groupe bu neex ñu yëngal ambiance bi neex nit ñi fecc ba doyal ñu séq jàmm ak salaam ndax musique loolu la rek jàmm la ak salaam da ngay bégal doomu aadama yi doomu aadama yi di la bégal ndax tey jii kenn ku nekk ñaan na yàlla booy tëgg nit ñi ñëw te bu nit ñi ñëwee loolu mooy sa fierté da ngay daal di kontaan da ngay daal di sawar ci li ngay def xam ni kat yow li ngay liggéey mu ngi avancé waaw noonu la daal loolu. te géejawaay di fierté fi nga xam te ne fi la dëkk muy côté Mali bu bii géej gi sorewul gi mais Pape xam nga suñu Sénégal waajur yu bari bëgguñu seen doom di def li nga xamante ne mooy musique ma doon bëgg xam ndax début bi metti woon na ci yow lool am déet. waaw début bi metti woon na ci yow parce que suñu waa kër ay suñu waa kër yi ay kilifa lañ xam ne jàpp julli man ci judd nekk ci nag bañ demee ba xam ne lii nii nii dama ko bëgg ci lañ ma ci jàppale ñoom ñëpp jàppale ma ci di ma doole te boobaak léegi bañ ma dalee jàppale di ma ñaanal maa ngi gis yoon ndax sa waajur moom. lu loolu sama yaay mu wax lu am solo mu ne ma Pape sama doom la maag yaay a bokk yaayam génn àdduna bàyyi ma moom waaye buy ñëw di tëdd si sax damay dégg ci sama parenteer mu naa xale yi dëkk leen ndànk bu leen ñëwee sama yaay bu leen ñëwee dëkkandoo yi wax ko mu tuuse ma loolu ma ne naa ko jaar ci nga dégg tey jii fi ñu toll nii lu bëri xam nga moom lañ ko di faj kan di def grâce à moom la parce que tey jii amaana sama yaay mënoon a génn àdduna mu sàgganee ñu wala dara moom daal moo ñu yor ci kër gi donc suñu yaay ak sama tonton bi nekk Afrique du Sud muy Abdoulaye Mbaye waaw di ñu defal nag lu nekk waaw ñun daal ñu ngi sant yàlla bu baax waaw dañu yàlla maye waa ji ñu ndax bokk rek dafa fort mënoon nañu sax non ki yaayam kii na xaaral ma bàyyi mais defu ko daf ñoo téye comme ay comme ñun jur te ay doomam lañ sax ndax moom sama yaay ñoo bokk waaw noonu la demee macha allah ana Pape lan lay wax ci kàddu yu mujj lan lay ñaanal ay lan la leen di dénk waa fans yi li ma leen di dénk mooy bëgg dafa metti li ah, ma leen di dénk mooy bëgg dafa metti ñu jàpp te yàlla tax ndax ragal naa ni nit moom boo ko jàppee te yàlla tax rek ah. dara du fëtt sa dara du ñëw gën waaw nañu jàpp te xam ni lépp dina baax te xam ne ñun fans yi mooy suñu fierté xam nga ñoom ñun ñooy seen fierté mais suñu fierté waaw ndax dooley jën ndox la waaye dooley waykat bi public bi la kon ñoom ñooy suñu fierté waaw nañ jàpp rek te xam ne lépp dina baax ay xale lañu bu fekkee dañoo def lu dëng nañ ñu baal bu fekkee ni nag lu jub la lu ci ñëw ci yàlla waaw mm-hmm. mu ngi kontaan bu baax ci ñëpp maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen sant yéen nga xam ne yéen ma seet si ah, ndax li yombul de def déplacement dérangement fayu ma leen dara parce que dëgg yàlla leen jàppale seen talent yi mm-hmm. di leen jéem di leen génnee ñëw di yokkute rek laa ci gis yokkute rek laa ci gis euh, dina jëm kanam incha allah dina jëm kanam. may ak yow dama bëgg nga may ma benn acapella bu saf sàpp xaw ma mbalax la kii taasu lay doon xaw ma ma xam nga damaa xamul soo son yi nu ñu koy tegee noonu waaye lu mu ci mënti doon rek sama micro bii bëgg naa nga teg ci dara. waaw dama naan la rota ci sa rota ko sa gu gu gu gu gu sa gu sa nga naan gi dafa jaraba gis gi dafa gis gis gi dafa jaraba taas salba cal ketal go go nga naan wuyaay ki cas wuyaay gu gu taxin ay suus ki cas wuyaay gi gi taxin caw la raw raw rota tas tas tas ci cere waaw tarkalla macha allah man de pour man sabar lan teg fii dëgg neexul waa nit ki lu muy def rek na doon loo xamante ne mën na ko macha allah Pape Bara lañ andalon tay ci seen biir émission ndaanaan ci biir goxam dama koy bàyyi mu remercier ñi nga xamantene ñom lay remercier ñi mu war a yee maa ngi wax ñepp nak wa Sénégal ma ngi leen di sant di leen gërëm rawatina yéen ñi nga xamne yeen yéen ñew jël ma ci émission bi di ma laaj sama jaagaay bi ma kontaan ci torop ma ngi remercier wa 5 étoiles yeup sama xarit yeup di remercier Sidi sama jumeau sama xarit ndax ku baax la mom tamit xam nga ànd bi rafet lool di ñaan yàlla musal ci cat ak làmmiñ waa di remercier Baye di remercier Jéeki di ba sëy ñëpp di remercier sama waa gaale di remercier sama grand Sike mi nga xam ne dafay ñëw tey muy sama nijaay ma kontaan torop sama xol sedd bi ma ko gisee léegi nii ndax yàlla moo ko ci boole kon hasard amul waaw loolu noonu la demee daal maa ngi kontaan daal ci ñëpp di remercier nag Mbay borom Turquie ndax daf may yónnee ay sañse suba ngoon guddi bëccëg mbay borom turki maa ngi lay remercier bu baax grand bu baax nga grand bu bien maa ngi lay sant di nekk complexe tous les vendredis comme fan si ni niñ ko bëggee di ko seetaanee noonu tous les vendredis duplex lay doon ñu koy jaajëfal bu baax a baax tey ñu ngi woon fii nga xamante ne mooy géejawaay fekk si suñu ndaanaan bu mag boobu ñuy remercier ñi nga xam ne jaar nañ fi ñëpp seen xarit seen doom ngeen ci àndaloon tuuti njaay seen euh, jarbaat seen doom namoon naa leen xaw ma namoon ngeen maam déet maa daal ngeen àndaloon ci caméraman bi ah ma baara suñu assistant moom lañu ñu àndaloon tey jaajëfal naa leen di leen wax ne jaa ngeen jëf ci yeneen émission ci seen biir télévision TMP